kanam ne waa Tassette ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sawu ci xaar bu yàgg bi nga xam ne xaar ngeen ñu ko ku ñëw ci dëkk nag di nga nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk dëkk bi ñu ciy jiital chef de village bi nga xam ni mu ngi fii toog monsieur caw ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi nuyu kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp ñu ngi nuyu monsieur le maire bi nga xamante ni képp ku ñëw ci dëkk bëgg faa def activité diñ ko tàggu yëgal ko mu dalal la te bi ñuy ñëw dalal nañu ci jàmm ñu ngi nuyu toute la coordination de Tassette di ci juutal le jiital le coordonnateur Tidiane Diop liñ fi wax ci moom jarul je pense ñu ciy dolli leneen ndax Pastef ku xamoon démbam fii ci Tassette gis ko tey luñ ko bañal bañal bañal dinañ xam ni macha allah liggéey nañ fi liggéey bu am solo mook tous ses collaborateurs loolu du loo xam ni dañ koy naatable ñu ngi nuyu sunu alliés yi nga xam ni ñoom lañu àndal depuis le début de la campagne ñu ngi nuyu les investis soxna Marème Ndiaye mi fi nekk doyen Ablaye Faye ak euh, monsieur l'ex-maire adjoint Amadou Dia ñu ngi nuyu vraiment ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ bi di wax rek ginnaaw gudd na mënuñu tëb le doyen Sène magi Pastef boo xam ni engagement am jaral na ko mu tëdd kaso parce que boo demee Pastef chance bi mu am yeneen parti yi amuñu ko woon ou parti bi da daan am ay ndaw kese kese kese wala ñu dem ba nekk mag pene à se renouveler mënatuñoo am ay xale ñooñu moo tax parti yu bëree bëri bëri sur la distance dañuy obligé di virevolter ci régime bu ñëw parce que mënuñu renouveler Pastef yàlla may ko bi ñu ñëwee ñu ne parti xale la jigéen ñi wuy si ko mag ñi wuy si ko artisan yi wuy si ko couche yëpp wuy si ko loolu mooy dooley Pastef moo tax buñ nee Pastef dafee war a toog ba deux mille cinquante du ci ay chiffres économiques ci structure parti bi ni mu demee la mooy day renouveler ñu nekk ay xale ba pare ay mag yu am fit yoo xam ni mën nañ ñoo tempérer sunu ardeur kenn wax na ko fi ba pare bu xare jotee ñoom ñu jiitu ci comme ni ko doyen seen defee doyen ñu ngi lay sant di la gërëm di la rendre hommage. di nuyu monsieur le maire de la commune de Thiès Nord Mouhamed Diakhaté bi nga xam ni il a tenu à se déplacer pour marquer l'événement te ñëpp boo gisee. délégation bu am solo ñëw mooy omage boo xam ni ak cër boo xam ni jox nañ ko tiijaan Diop moom moo tax ñu ñëw fii xëy na dafa am lu am solo loo xam ni président Ousmane daf ko wax nit bu amee doole bala ñoo xam nit ndax il est du koo xam ni dafa am alal dañ koy natt ci ku ñàkk bu ñu xamee nit ndax am na fit mooy koo xam ni dafa wéet mais man tey mën naa am fit parce que am naa lu ma àndal lu bare bu ñu amee ay gànnaay rek mën naa wane fit mais bu ñu xamee aussi nit ku xam avenir nit ku bëgg yore réew mooy koo xam ne bu ñu la tooñee nga baale ba nga mënee fayu te boo fayoo it kenn du la wax ndax dañu laa tooñoon moo tax Tidiane li nga wax léegi am solo képp ku la mës a tooñ baal nga ko loolu mooy bunt nga yéeg fi nga bëgg a yéeg donc ku képp ku dégg wax jooju nañ ci tirer toutes les conséquences ndax lan dañoo war a defar am réew fii ñu ñëw ci taseet li nga listé mooy jafe-jafey taseet ku la dégg xam nga te loolu la ñuy xaar ci coordonnateur mooy koo xam ne waxuñu ko rek parti bi yóbbul cellule mu xam les jafe-jafe dans les moindres recoins liste bi ñu fi dressé de doléance ku ko dégg xam ni maîtriser nga zone bi te loolu moo gën a am solo li président Ousmane wax pour waa Tassette xam ko mooy commune yu Tassette yu bëri yu am doole boo koy xool ci këyit ñoo fi nekk mais communes yi gis nga doyen Mbaye euh, Ablaye Faye wax na ko Jobaas dafa rëy ba ñu ne xaaral ñu génne ci Tassette mais boo ko génnee administrativement rayaale nga ko économiquement loolu moo tax pôle territoire yi ñëw ñu xam ni tey bu ñuy wax pôle territoire mooy dañuy jël les limites administratives ñu teg ko fële xool ñoom ñëpp doole gi ñu am ci activité nan lañ koy lëkkalee loolu moo tax tali bi war a jóge fii dem Mbour du pour waa Tassette pour waa Thiès la intérêt tali bi du pour yéen ñun buñ koy xeex dañoo xam ne pour waa Thiès la parce que ñun noonu lañ koy comprendre raccourci bu baax la ci ñun booy dem Ndiaga boo fi bëggee dem dangay ngay wëree wëri ba yegg talim njaga ñaaw bi doxalay gënal jël oto ndax talib bon te boo jaaree suuf si yii léegi ngay génn yegg fa moo lay wan ni erreur yooyu moom la pôle terituwaar yi war a moo tax ñu xam ni lii liggéey réew mi ñëpp a ci xaj ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ci xaj yàlla xam na ko bu leen bedd kenn ku xalaat suba rek da ngay xam ni tey yaatal baax na ci na ñëpp yaatal moo tax président Ousmane dëkk bu mu dem woo kilifa yi ni leen ñëw leen parce que dama bëgg a wan ni man mii ngeen tooñoon sonal ma ba ma nar ñàkk bakkan ñi muy léeg nga tudd tur mu ne ma diw ma ni ko waaw diw de nee na daa bëgg a ñëw jàppale la mu ne pourtant moo yónni woon ay nervi ñu kar ma ci tel endroit de na ñëw ak jàmm ak salaam parce que xam na ni dafa réew mi dafa laaj dépassement projet économique yi ñu am dañoo bëgg yéen ñi nga xam ni waa taset votel ngeen président Ousmane président Diomaye xam nañ ni comprendre ngeen ni munoo leen koo gañeloo présidentiel ba pare bañ koo jox majorité assemblée kooku xam nañu mënul ne yàlla nag am lu leen cërale ngeen am ab Ablaye Faye mu nekk koo xamante ni lépp luy jafe-jafe fii yàlla may leen ministre bi toog te li ngeen fi wax mooy lu ci ëpp courant la ñu jàpp ni lu bëree bëree bëri dina ko ci faj far bu Ablaye fay ñëwee ñun ñii ñëpp ñu bokk si jàpp nañu dina baax pour taset man nag bëgguma waxal maire bi le maire de la ville dama koy xaar moom mu ñëw waxal boppam mais li am solo mooy nit ku jóg génne kayit nga yor bu Ousmane Sonko mu yor bu Ousmane Sonko ngeen ànd dem ci urne ba war jafe loolu lu am solo la parce que ce que encore une fois président yi sunu kilifa yi dañoo soxla pour doxal seen projet réew moo xam ni tubaab yépp dañu naan ñii la ñu sàkkale woon pexe du Dia Thomas Sankara keneen ak keneen ak keneen ñii ànd nañ seen peuple ànd nañoo ak ñoom ak 150 wala 160 députés yi ñuy wax ba nga xamante ni kenn mënulu leen dara loolu foog ngeen kàttanal seen nguur bu ñu leen kàttanalul lii ñu bëgg que ce soit moom mii ñu dénk renégociation tous nos contrats ba ci miin yi nekk fii wër yaa ngi koy wax fii ku gas sa miin ba pare mais pax nga fay bàyyi dem sa yoon kenn mënatu faa bay kenn mënatu faa sàmm. tibb nga nag la fa nekk yëpp yóbbu te ñii ñëpp kenn jariñoo loolu lépp pour mu mën a am mooy dañoo xam ne waa Tassette dañoo voté à quatre-vingt-dix il faut ñu dégg score soviétique yooyu ndax réew mi moo toll foofu donc nañu booloo xol yi tëj vole politique volet politique dañ koo bëgg a tëj avant décembre incha allah moo tax ñu su gën a soxla majorité bi maanaam ni leen bàyyi leen ñu may ñu xel mu dal pour ñu liggéey parce que bu ñu continuer coowal politique réew mi day gën a tardé ñun xam nañ ko dañoo bëgg a génn la volet politique moo tax lu ko nit mën a fayee na ci jàpp pour mu fay ñu dugg ci incha allahu rabbi le 17 ñëpp booloo voté ngeen jox assamble nationale yóbbu Ablaye Faye ak ñi mu àndal ñëpp ñoom Marème Ndiaye ñu toog fii ñëpp à l' assemblée nationale fépp fu ñuy jooyalee taseet ngeen am fa représentant te loolu lu am solo la. di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci réew mi nañ ko ñaan ñun ñëpp ñaanal ko suñu bopp yàlla may ñu xolu jëllale faw ñu am xolu jëllale bu ñu bëggee réew mi dox ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum jërëjëf ba beneen yoon.